salaamaaleykum mbokk internet di ñu safoo di ñu seetaan saa su nekk fii à dakarnet.com comme ni ma koy defee chaque jour di wër ndaanaan artistes yi te dañ ci dalal koo xam ne kenn du ko présenté fii ci Sénégal kooku mooy Ouzin Mbaye lu ñu def lu dul jox ko kàddu yi mu nuyoo rek euh, après ñu dikk ak yéen ci waxtaan Ouzin ñu leen nuyu di la waaw sama xarit maa ngi laa fay di la di julli ci Seydina Muhammad di sant yàlla bu wér di ñaanal samay ñaari waajur fa ñu nekk yal na leen gënal fii ñu jóge képp ku ñu fa fekk képp ku leen fa fekk. di ñaanal sama sëriñ sëriñ Afia Mbakke mu sëriñ Fallu yal na yàlla yokk leeram di siyaar senegal yëpp di nuyu àdduna di nuyu diaspora bi di nuyu nag waa Dakar net bu baax a baax a baax. mi ngoo kooku mooy Ouzin Mbaye yaakaar naa ne senegal xamee nañ ko dañuy def rek du dugg ci waxtaan bi Ouzin ñu lay njëkk laaj mooy jamono yi gis nañ ku jug yor bongo di bongo ñu laaj en tant que yow nga yàgg ci aar bi yàgg cee nekk. tek euh, nga nekk fa ak say mag say rak ñoo topp tey la ngay digal comme ni ñuy joué ci bongo bi. waaw foofu damay wax bu tooñ teewee. ki ñu tooñ teew kii atte tooñ teew ñu jël tooñ teg ko ci kaw tooñ ki tooñ ki ñu tooñ. loo doonul taalibeem rek doo doon sëriñam. ñu bari nag ñu ngi bongo mën ko lool waaye dañ ko def utukaayu xaalis. jànguñu ko ñoom nañu am weccet rek ñibbi. te affaire yi du noonu bongo danga koy jàng. bongo da koy jàng. waaw loo gis rek da koy jàng. est-ce que mënuñoo xam fan la ñuy jàngee bongo fii ci Sénégal. waaw bongo moom ku ne xam na ni benn maître moo am ci Sénégal muy Ouzin Mbaye. yaa xay jàngale képp ku ma jox ko net yi not ak mbóot yi man soxoruma formé naa plus ay millions xale tey ñu ngi ciy daan seen doole ñu ngi ciy dem fu ne. macha allah xale yooyu ñëpp dañu ñëw def formation ma jàngal leen bongo ñu dem di ci toj àdduna ku bëgg a jàng da ngay ñëw ma wan la mbóot yi. est-ce que xam ne moo composé bongo. waaw bongo. Mhm. leket la am na benn morceau bu may way naan bëgg bongo taxut mën a bongo bongo yaa ngi nii leket ci suuf. Hmm. bant ci kaw laam ci diggante bi ak feer foog nga wuti ngàccaar. ngàccaar hmm. mooy lii. xam nga ku ne xam ne nii leket la. Hmm. lii contreplaqué la. lii laam la lii feer la. mu génnee macha allah son bu la neex. ku ne dégg na son wu Pape bi cas. lii moo ko bongo ba àdduna yëpp tey générique yi ku ne di ko def mhm. maa bongo musique boobu ba mu neex ak yeneen ak yeneen ak yeneen dañ la def ay yenn générique ay Mayacine ak Dial mhm. ak yeneen yeneen mhm. mais dañoo jëlee gisaatul moo waral loolu waaw xam nga Mayacine ak jaal benn année la woon macha allah ñoom ñu koy renouveler di ko teg ay année yu bari ma woyoon Mayacine ak Dial sama mag bii ñu ñëw tey seet si muy fii ma ko defee defe naa chaque année mooy way ndogul yi ndogul yi muy fii mbay Mm-hmm. ma yaase nag jàll nag ak yeneen ak yeneen ay publicité yu bari maa ko def. Mm-hmm. macha allah bëgguma publicité. Mm-hmm. waaw mais def naa yu bari daal. def nga yu bari daal waaw waaw. gis comme ni mu la ko waxee sàng xale yi fii dañuy gis romb benn xew. benn benn xew rek xam ma dem sol ay pain ku leen gis du leen sax nawloo ñu laaj yéen en tant que ngeen nekk ci affaire bi <laughs> nekk ci aar yàgg ci. instant loolu la nga mën a expliquer ci xale yi ban conseil nga leen mën a jox. jamono waaw loolu moom defe naa kaas nañ ko guddi kaas nañ ko bëccëg. booy dugg kër jàmbur da nga naan koŋ-koŋ. Mhm. ba ñu ne la entré nga dugg. macha allah yëfu jàmbur nit ki moom lu ñu la wooweewul pour man waroo fa dem. mais jàppale kon Ouzin Mbaye luñ ko wooweewul du fa. déedéet mukk kenn ñemewul kenn kenn xalaatul loolu sax si àdduna man rus naa yor bongo jàdd fii dox bu ma yoree bongo damay génn taal sama oto dem jouer ji pare nekk sa sama place sama liggéeyukaay mais duma dem fuñ ma wooweewul. du ma wax lu ma waxul du ma ngénte daal ko wasinul bëri xar taxu maa ngénte doom ju ma jurul mhm. macha allah macha allah moom ni ko defee yaakaar naa ne jógee nañ tamit ah, ci covid bi mu ngi ci ñu yàqoon lu bari ci yéen. waaw ci euh, ci kii bi comme ni ngay waxee ci Covid bi seen programme yi ngeen daan tëgg. Mm-hmm. est-ce tey jii yéen ñi tey commencé ngeen waat nekkaat seen programme. comme ni nga ko defee woon. mais alhamdulilahi rabbil alamin metti woon na trop ba ma defoon benn vocal. vocal ne salaamaaleykum Amdy Mbaye man la Ouzin Mbaye. may mbokk internet Dakar ne di. salaamaaleykum Amdy Mbaye man la Ouzin Mbaye. Macky Sall de français la doon wax. doo ma dimbali li mu wax ci français nga wax ma ko ci olof. bàyyi na géwël yi ñu tëgg wala bàyyiwu leen. mu metti woon trop. Mm. deux ans presque. macha allah man sax waxuma sama bopp mais yeneen gooy yi. Mm-hmm. yow xam nga ni man damay liggéey. Mm-hmm. mais ñeneen ñi metti woon na waaye tey alhamdulilah lu metti yàggul. Mm. ubbiwaat nañ lépp. commencé waat nañ suñu activité commencé waat nañ ngénte yi ceet yi mariage yi ak tuur yeeg lépp commencé na. ok mën nañoo jàpp tey Ouzin Mbaye dinañ am xam ne war na ko mën a xam ne gars yi dañ dem fekk ko fa mu yëngal mu neex maa ngi waajal nag sama bés bi may def chaque année mm-hmm. macha allah ma koy def soirée bu mag maa ngi koy waaj léegi léegi rek dinaa jox gars yi date bi incha allah dinañ toog ak sama manager ñu waxtaanee ko ma tëgg événement bu mag incha allah bu neexee yàlla. Mm-hmm. jeex na comme Zimba ni mu ko waxee noonu di wax leen ngeen xaar ko te xam ne moom daanaan la aussi tamit. Mm-hmm. léegi lu ñu def lu dul rek bàyyi la nga laalal ñu bongoy bu tuuti rek. Mm-hmm. après ñu duggaat ci waxtaan wi. waaw Dakar net leen di nuyu. xaar def sama gaay man la ni bëggee ñu mujjee ñëw ñoo a neex xam naa ci dara am nañ jom am rakki jom am nañ maami jom Waly Diouf ma way la wane la way ko man way ko way ko wane ko way ko ko man doo aji saar mi nu leen dëggoon Sonko réew mi taxaw ne doo am e eh, xolal Waly maa ngi lay bégal e eh, ko la xar foofu rek nga ko daal defe naa ne lii mosoo ko dégg ci bongo de. ci <laughs> ah, bongo mel ne ki sabar. mooy li ma wax léegi rek loo euh, doonul taalibeem doo doon sëriñam waaw dara yaakaar naa ne lii ko gis xam ne Ouzin Mbaye nekk loo xam ne mhm. ah, maam da koo jékki rek def ko da koo jàng maîtriser ko macha allah di nekk ay not mhm. est-ce que bongo am na ay notes Ouzin Mbaye waaw dégg nga notes yi léegi waaw comme ni ngay duggee ci sabar waaw dégg sabar nu muy nuyoo est-ce que mën nañoo gis bongo tamit daa am nu muy waaw bongo moom ku ne xam na ni am na nu muy nuyoo nan lay macha allah nuyo bongo mm. xam nga sabar da nga naan da téye sabar bi nam rasaket mm. mbrasa kita kita kiis géwal yi may dégg xam nañ ko mais nuyo bongo bu baaxul nga ne moo lay jox eh, allah <laughs> man bu sax daal man moo may rey quoi vraiment. <laughs> dëgg xam naa ne mooy rey Sénégal yi waaw ah, jeera. macha allah mooy daaneel waali waali mm. saa bu ma defee lii de lu mu yor ci poos bi may ma ko. ndeysaan. macha allah lu mu yor jox ma ko. waaw moog Paco Jackson sama xarit bi coppati Sambay Naar du ale Sambay Naar fari Michel Sambay Naar. Mm-hmm. taalibe Serigne Saliou bi. Mm. kooku moom. nee na ma bongo man yi ci réew mi yëpp benn xarit laa ci am muy Ousseyn Mbaye. man li ma dégg nii mosuma koo dégg ci bongo lu ma neex laay tëgg ci bongo. Hmm? lu ma neex dama koy tëgg ci bongo. man nga ñuy mayaat. ndax dama ko jàng macha allah. Hmm. léegi dama leen di may. Hmm. lu bees tax luy luy rëmbe jamono. waaw may ci gars yi. Fallou Benjamin sama xarit moo ko def. Eh. <laughs> loolu. xam naa ko Morita Bane. <laughs> lii kenn mësu koo gis. kenn mësul gis lu boo xam ne loolu def di ko def sabar ah Fallou ba ngay boobu def sabar di ko def piano yow loo saf daal nga koy def quoi macha allah kontaan lañ trop mooy loolu neex na. macha allah yéen da ngeen doon site boo xamante ni àdduna ñëpp leen di bàyyi xel. Hmm. macha allah muy Dakar net li may wax yéen a mujjee ñëw waaye yéen a gën a neex lépp lu leer rek ci àdduna yéen a koy teg moo tax boo leen ma seetsee fekk ma fii sama kër mag vie mbay lépp lu ma xam ci xam-xam dinaa ko yee yi tey ñuy xaar bañ leen di woo bu ñuy dem di correct di sol lu rafet macha allah man bu ma demee ci xew ku ma xamul sax duma la waayaan koo xamul waaw ku ma xamul sax du ma la waayaan ku ma xam nag dinaa la wax lu baax mooy li ma la wax léegi du ma ngénte ku wasinul mais xale yi nañu jëlaat leçon si ñun ku mel ni man am ndaw vie ñaa galas bongo vie mbay macha allah nañ jël ci ñun référence ndax ñoo ñooñu yàquñu aar bi benn yoon macha allah. mi ngi noonu comme ni mu ko waxee kon yaakaar naa ne loolu noonu ah, jàngat la war ci xale yi joo xam ne ku jug da ngay bongo. artistes yi relation ngeen am ku ci mel ni Wally mm-hmm. tey bu ñu doon wax ci Wally tey nga ñuy wax ci moom. waaw kooku Maria Sine Maysa Bigué ñuy jaale waat suñu papa Thione. Hmm, dañ ko ñëw après incha allah. waaw di ko jaale Sénégal yëpp. macha allah Waly moom ku ne xam na sama digganteeg moom. mu yàgg lool ba muy jàng école point eur de may dem di leen fa fekk. maak sama mag Vieux Mbaye di leen théâtral mook moomi. Hmm. macha allah moomi magam. publicité yu bari ñun la ko doon jox boobu mi ngi ci d'accord macha allah ku ne xamoon na d'accord. Hmm. moo yoroon lépp luy wàllu publicité. waali nag sama digganteeg moom Sénégal yëpp xam nañ ko Maria Sine may sa biigi macha allah ah, muy sama xarit di sama doomu ndey di sama rakk bërki démb rek am na lu mu def man produire ma defal ma six morceaux. six morceaux yu waaj a génn fay ko yu waaj a génn trois yi maak moom la trois yi man kase macha allah loolu la def man Maria Sine may sa biigi. ndeysaan kon kooku defoon na lu rëy kon yaakaar naa ne loolu bu génnee tey jii dina dina. tànn loolu dina mel ni. foowum dof gu ànd ak ñetti tama. Hmm? macha allah waaw dina mel ni ñaari dof yi doon football tous sax ñu ne bii. macha allah. <laughs> kon loolu dina neex bi ñu ko jigee tamit dañ lay laaj parce que ñëpp ñu ngi koy laaj ah. sa hmm. relation yaak euh, Lamine Samba sa mag la. waaw jot na tey nga leeral gars yi lan mooy sa relation ak. waaw kooku dama naan bant yërëm jéey maamam. Hmm. Ndéla yërëm jéey Fatou Meng yërëm jéey ak Sophie yërëm jéey kooku dañoo bokk ndayet baay. macha allah muy docteur ci biir fami ku ne xam na ni Lamine jàppale nañu ci saayir jaay jàppale nañu ci saayir mais nag ñun dañoo gëm suñu bopp. ba fu mu xuus jaar ñu ngi fay jéem a pour xuus pour jaar. ndax ñun loolu lañ ñu jàngal. mais ñoo bokk ndey ñoo bokk baay moom ak El Samba Pape Samba Sadibou Viam Mbaye macha allah ki neen day tuuti ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay. mais macha allah Lamine Samba sama relation ak moom jàmm la ak salaam. ak tawfiix. mais ba wax ci moom tey ji lan nga ñuy wax ci moom. ku am ful la ku dëggu ku ñeme wax dëgg ku ragalul wax dëgg lum la bëgg wax dina la ko wax loolu nag la ñu jàng ci moom muy lamin Samba am na jom am na rakki jom am na maami jom muy Lamine Samba sunu mag yiir ñu ñu jël ci moom nag ay jikko yu bari muy fulla ak fayda ba tey Sénégal xaw ñoo xam sax ak cause à Lamine Samba waaw kon yaakaar naa ne loolu leer na wax ci Lamine Samba aussi tamit ah, leer na bu ko jógee dañuy dugg ci à ah, Thione Seck mhm. nekkoon monument fii Sénégal mhm. def lu nekk mhm. moom sax mun nañ jàpp ni waayam ay test la ñu laaj bi nga yëgee euh, nouvelle boobu noonu mu nekkoon lu tiis nekkoon lu métti nga jege woon Waly jur boobu euh, Ouzin Mbaye nan na la def waaw defe naa ni loolu moom Sénégal ñëpp la bett waaye du ma ne sax du bett kenn ndax macha allah lu yàlla dogal la duñ ko yëgee ñun ñëpp danoo sol suñu dàll dem bokk ak waali naqar bi ñun ñëpp dem yéen doog moom dem ñaanal ko Sénégal yëpp ñaanal ko muy monument koo xamante ne lu mu way rek téere la macha allah ñu koy ñaanal yàlla yan na yàlla xaare ko ak àjjana suuf sedd ci kawam foofu mu nekk yan na ko gënal fii mu jógee képp kum fa fekk képp ku ko fa fekk barki Seydina Mohamed ndax monument la référence la fii ci Sénégal waaw fa laay ñëwaatee rek mooy référence bi muy comme ni nga ko gisee mu génn àdduna ñëpp ñëw teewal ko waa mbokk yeeg xarit yeeg ñu daan ànd ak ci wàllu musique ak tey ji boo joxe conseil ñu nekk ci aar bi di xëccante di buuxante tey ji lan nga di wax noo aar moom jarta buuxante wax naa la ko léegi aar dafa yaatu boo ko mënee na nga ko fonk daw nay caaxaan bokk na li leeral duniyaa aar dañu bokk ndey bokk bàyyi ku nekk mënoo lekk sa wërsëg lekk wërsëgu kii lekk wërsëgu kii ku ne da ngay lekk sa wërsëg rek jox sa moroom kon ñun ñëpp nañ bokk ndey bokk baay mm-hmm. macha allah. Mm-hmm. yaakaar naa loolu leer na nañ bokk ndey bokk mbaay. Mm-hmm. mais Ouzin Mbaye est-ce ñoo xam kan mooy le vrai Ouzin Mbaye. waaw Ouzin Mbaye benn xale la rek. parce que waaw. jàng ba CM2 classe géwël yi. classe géwël yi <laughs> li si des yëpp mu jaar ko ci simb. maa nekkoon raxan ku ne xam na raxan ci àdduna. ma nekkoon raxaab jóge ci simb jaar ci sabar. Zambal da ngaa jaar ci simb. waaw waaw ma nekkoon raxaab di xaw a rey waaw. Ah. waaw ba ma fa jógee. man yor tàmbar masoor bu mag di tëgg ay faas ñun ñëpp faas lañ juddoo yaroo fa fa. bi ma fa jógee nag yàlla wër sa këmale bongo yi. may ànd ak Cheikh Waane ak Taabaan ak Njaw ba tey jii macha allah Sénégal ñëpp ràññee Ouzin Mbaye. mais est-ce xam Ouzin Mbaye comme lu mu wax fu mu jaar débuté bi dem fu nekk. est yaa ngi dem ah, ah, bitim réew du fa jouer comme ni ko gars yi di defee. non ah, musuma dem Europe. mais Ouzin looy xaar. waaw man xam nga bu ma ko bëggoon macha allah. Hmm? dinaa paasal sama bopp dem. mais man damaa bëgg nit gis li ñuy def comme ni gars yëpp demee. Hmm. signé contrat ñu yóbbu ñu. ñu siyee ji yàgg nañ ma ko imposer sax mais damaa juboowul ak ñoom. ah d' accord waaw yàgg nañ ma ko imposer. mais mais lu mel ni bëgg a yóbbul mais lu mel ni lii tey boo ko yóbboon ah, fële ne benn affaire lay doon de. déggoo ma ne la yàkkamtiwu ma dara incha allah li léegi rek lépp dina mat ci kàttanu yàlla. Hmm. waaw bu soobee yàlla ak yonent bi. waaw kon mi ngi noonu kooku mooy Ouzin Mbaye moom lañ dalaloon du ma ko taayee di wax. moom mi ngi ni ko gis xam ne ndaanaan la tamit wàllu la tamit ah, ci wàllu ah, artiste yi ak fu nekk. du ñu def xam naa lu dul rek jox la kàddu yi rek. waaw Dakar net moom ni ma leen koy waxee rek. Mhm. yéenay saaba yan rek baaba yan rek baaba rajax fii tas ngeen ko fii tasaaroona fii nee na tasaar. ah allah. maa leen di bëggee di kontaan ci yéen. di nuyu Sénégal yëpp di leen bëggee. di ñaan yàlla réew mi yal na fi yàlla def jàmm. yàlla def fi tawféex. yàlla yàgg leen fi macha allah ndax yéen a ngi wane lépp. waaw mi ngi noonu mbokk internet yi naa ni kontaan ngeen tey ki ñu leen andiloon di uh, Ouzin baay nekkoon daanan nekkoon artiste gis ngeen lu mu def ci bongo tamit wax ci lu am solo di leen wax émission bàyyi noonu di showbiz incha allah demee keneen ngeen amaat beneen daanaan beneen artiste di gërëm nag ñëpp ñu fekk fii ku mel ni Fallou sama cameraman maa ngi nuyu. sama chauffeur bi Ndiaye ak Nana mi ngi noonu di leen wax dig daje rek beneen yoon ak ak keneen incha allah jaajëf bi mm-hmm. maa ngi kontaan ci yéen di nuyu ñëpp di nuyu Sénégal émission bi nag ni ma ko waxee woon li muy rëy rëy Waly Diouf laa ko may boroom les Sambour léegi dama koy tàggoo. waaw da ngay tàggatoo doomi garmi bi defal 23 24 25 téléphone bi ubbeeku ma way Waly Wally Diouf ma way la wane la way la maa ko man boo di ko jàkkalaar doo tabandoor mi dogi bakkan yaay Sonko yaay Sonko yaay Sonko ak ya dafa néew doole ja yaay Sonko e Wally waxa ngi doga ba fasi ba takk ba tekki ne wajañ wajañ Wally la ñeen eh, xar may ko <laughs> ko bokkal dimbali nga ko askan <laughs> bi nga